ci mbirum euh, caisse d'avance bu mairie de Dakar ñu ñëwaat encore di wax ci mbirum euh, créé ci ci ki nga xamantene mom moy euh, Karim Wade ñu permettre ko retrouver ses droits civiques est-ce que lolu war nañu ko mëna def pour des personnes ñom ñaar alors que en ce moment ñi ngi wax ni dañuy écarter ben leader politique comme Ousmane. waaw Fatou Abdou wax nga lu am solo tay bu may déglu débat ci assemblée sama xel Abdoulaye bi nga xamné ci tàmm naa di rappeler. daan na wax ni gor dëgg boo ko bëggee jaawal ki kàddu démb méngoo ak jëfitayam ña doon wax démb ni Khalifa Sall ak Karim da tey bu ñu taxawee ni Khalifa ak du bokk ak Karim war nañu poser la question mais vous me permettrez il est important de rétablir la vérité sur beaucoup de contre-vérités yi nga xam ni fan yi ñu ngi koy wax ci réew parce que man nag dama am chance bokkoon ci délégation taxaw Sénégal bi doon préparer le ma de Yewwi Askan Wi keroog ba ñu fii ci benn place leader yi si 18 leader yi signé ku ci ne maa la jox big ba nga signé donc yewi ñaari bu teunk et il faut que confusion bobu ñu jour du lancement mom le leader yi signé il y a l'accord cadre bi nga xamni 3 jours après la ñu té li sama mbokk imam wax légui amul fenn fu mu nekk ci ñaari këyit yoy amul fenn fuñ ko waxé lool pour revenir ci jeunesse yewi yewi askar bu taxawé tay Sénégal Khalifa Sall motax je rappelle kérok Ousmane Sonko bi mu joggé ci problème marsami ba ñëw fële nga xam ne mooy siège taxaw Dakar di remercier Khalifa maa ngi toog ci ginnaaw dafa ni Khalifa Sall de fan yee am na wax bu ñu commencé woon na waxtaan liggéey teg kuréel goo xam ni moom mooy regrouper opposition bi pour rap certains qui veulent dire que Yewwi c'est suite aux événements de mars les discussions de Yewwi Pourtant c'est avant te c'est Ousmane qui a dit ça devant piège taxaw Sénégal man ma fekkee ko te Yewwi ak bi ñu ko taxawal c'était pas pour xeex Macky Sall ça aussi il faut il faut rétablir les faits parce que ci charte Yewwi dañu ne yeewi askan wi c'est créé pour d'abord pour deux trois lañ wax trois bi ci njëkk ñu ni bu élection locale jotee ñun ñëpp dañuy ànd nekk ci benn liste liste boobu nu muy ñu ne Ziguinchor Pastef yaa ëpp Ousmane Sonko jiitul ñu ne Ndakaaru taxaw yéen a fi ëpp doole Barthélémy Diaz jiitul ñu ne Bambey Aïda Mbodj yaa fay teg sa nit parce que yaa fa ëpp doole c'est ça aussi les vérités bi ñuy yeewi ci élection locale yi ñu ne bu ñu génnee ci local législative lañ jëm ñu ne législatif dañuy def une liste unique même procédé bi ñu defoon ci local noonu la ñuy investirale ba bi ñu demee war a ànd ak suñu mbokk PDS ak intercoalition bi xam ne ku ci ne ba ñu jàpp ni yaa fa ëpp doole yow lañ fay jiital donc c'est ça aussi les les, les vérités qu'il faut retenir mais ñu ni présidentielle nan lay demee Yewwi Askan Wi ni pour la présidentielle c'est la pluralité des candidats ku bëgg a nekk candidat mën nga ko nekk nan ngay def ba ne candidat yow yaa koy dox yaa koy wax donc yeewi askan wi amul pour interdire qui que ce soit d'aller discuter amul fenn ci charte yewé askan wi wala ci accord cadre bi fu ñu ni yewé du dem waxtaan day dem ci kenn du dem si dialogue parce que même quand on parle du dialogue yewé n'a jamais été convié un dialogue on convie coalition c'est des partis individuellement lañuy wo mais mais dans le mais mais ci contexte bi ñu. mais contexte la ñëw mais contexte contexte 2019, mille dix neuf Fatou plusieurs quand même. waaw mais même 2019. Pour rétablir bien dem kaso ba ñuy dem euh, dialogue Khalifa Sall ak fukki collaborateur ñi ngi rëbës dafa empêché woon ñi ñuy dem Karim Wade mi ñu wax tay ma nga won ñu exilé ko dafa empêché won ñu dem excepté le PDS rek moo demuloon ci dialogue 2019 tout le reste ba ci passé ils étaient au dialogue et pourtant Khalifa n'était pas éligible neuf de ses collaborateurs étaient avec lui à rebeus pourquoi ce même discours ceux qui sont au dialogue aujourd'hui en 2019 xanaa dunduñu woon lool moi ku mel avec man ak dix autres camarades on venait juste d'avoir une liberté provisoire à l'époque il a changé entre temps dañuy mastawu Ousmane Sonko ci liko dal té taxaw nañ ci nañ ci taxawé diko wax mais nit ñi buñu faté tam 2019 biñu ñuy dialogue taxawu Sénégal était à peu près dans la même situation et empêché un leader mu dem ci dialogue donc on ne me parle pas de contexte. xam nga lu waroon surprendre Sénégalais moy ñu ni dialogue amna Khalifa Sall ni du ci dem war surprendre Sénégalais parce que Khalifa, une constance qui terrain politique sénégalais, tu ne seras pas meilleur que lui. Parce que Constance Montar, 80 a de def code consensuel bi parti socialiste boole est ko ci plénipotentiaire Constance Montar, en 2012, mille deux gagné, douze bi gagné, gañee Macky parti socialiste parti bu ndaw bu parti yu lay dunde nañu bàyyi Macky mu gouverner ñun ñu dem opposé wu constance boobu moo tax en 2016 bi opposition bi wéetee kenn Khalifa Sall jiite la campagne gor ca wax ja jiite le référendum fii ci dakaar porte ce combat constance moo tax 2014 ba mu waree jàkkaarloog Macky ñu boo tamul bennoo doo doon candidat mu def liste taxaw dakaar gagné leen constance boobu malgré bi ñu ko jàppee ci kaso bi ñu wootee dialogue Khalifa, man ñu mel man dañ ñoon Khalifa, sax dañ warul dem dialogue à l'époque je disais s'il faut que si vous voulez qu'on participe il faut transférer dialogue à Rebeuss mais xam nga xam nañu lu mu ma personne importe peu quand il s'agit de la République pour en revenir à Yewwi il n'y a aucune aucune rencontre bu ñu wax ni dañuy ci dialogue bi ce qui s'est passé mooy un leader a pris son téléphone di oh, yéen leaders yi naan leen ndax da ngeen di dem et bi ñu waxee dialogue Cheikh Tidiane Dièye pour ne pas le nommer

pourtant ne s'était pas ça n'a pas posé problème pourquoi quand au Sénégal je vais au dialogue problème pour dire simplement que nous de Sénégal ce qu'on a fait nous sommes dans une constance politique une plateforme responsable qui, ca la commencé bañ ba exi fi ñu jëm pour en revenir ci question bi canton quand on dit par exemple la loi est-ce qu'elle est impersonnelle mais Fatou Abdou waaw xam nga Fatou Abdou tay jii Sénégal ñoo taxaw si je prends bien l'exemple du président Khalifa Sal Sall Ababakar Sall en l'espace de 11 mois ci lañ ko jugé ci lañ ko accusé condamné ko emprisonné ko révoqué ko nangu mandat député nangu mandat de maire il est important de rappeler aussi ça ñi nga xam a peut-être il a mémoire courte Khalifa dund na lol Khalifa Ababacar Sall y waxé ni ne juridiction sénégalais yi dafa ko mais dañu dem CDA mu condamné état du Sénégal et pour dire qu'ils veulent wër ci plateau di Khalifa a été condamné pour détournement public Khalifa n'a jamais été condamné pour le public et je au défi quiconque mu génneel ma donc pour dire pour dire simplement si on en arrive à un moment où on pense que Khalifa Ababacar Sall ak Karim Wade dañ bi moi je ne me considérer ni ce n'est que justice rendue face à des hommes qui ont été victimes du rouleau compresseur du président Macky Sall. alors euh, euh, Abo nous nañu la nga dab ci bi euh, puisque nous avons yendu assemblée nationale depuis ce matin voté peut-être fa ramener xam commission technique pour moi ko waxee mooy lu ñeel éligibilité Karim Wade ak Khalifa Sall PDS taxawu Dakar Benno mais ñenn ñi nga xam de dañu fare ci ay députés. Euh, voté wuñu voté wuñu ko lan nga ñu mëna wax fofu même si ça a été bokkul tay ci li nga xamante ne moom la ñu doon voté à l'Assemblée nationale. merci beaucoup Fatou ma ngi lay nuyu. di nuyu aussi ñima bokkal plateau bi. parce que surtout un frère bo xam ne maa mu Yoff muy Bassirou Samb ñu bokk commune bi ñu dekk ñu nekk ay fierté wu Yoff donc Bassirou ma ngi lay nuyu bu baax. bu baax du nuyu aussi ñi nga xam ne ñom la tobi ta fekk len fi comme ni nga ko waxee Fatou euh, mooy du woon question wu éligibilité yi moom lañ doon waxtaane